ngeen indaale seen jikko li extrêmement grave nga dem ba booy fal yow ki nga fal danga koy fal nga xëy suba ñu ne la kii nga fal bokkutoon ci projet bi yow compétence nga doon fal wala farfarloo nga mujjee jëlee ko fa. c'est n'importe comment fii ci mi. est ce que nekkul loolu moom moo leen indil ay ay ay jafé jafé parce que jub djubal biñ djubanti biñ waxone ñu euh, compétence bobu da ci am da ci am solo parce que c'est vrai que amna ño xamni xex nañ pour projet bi mais bu fekkente ne tay dañu bëgg euh, jël li nga xamante ñom ñoom ñoo peut être ci Pastef wala coalition Diomaye euh, favoriser leen ci par rapport ay recrutement yi ñu def est ce que du len porte préjudice également ci ci ci ci doxalinu rew mi. lolu ko ko am kersa mo koy xalat ak ku bëgg rewum ak nitu deug moo naan man fal ngeen ma ma falu waaye nag dootuma seen président président sénégalais yëpp laa mm. xam nga jomaay dane bañ ko fal dane dafa démissionné ci parti bi mm. kon ba muy nommé sénégalais yi la waroon di jël di nommé par compétence ndax moom bokkatul ci parti bi mm-hmm. mais waa parti bi rek lay nommé loolu mooy génn naa sama làmmiñ ci parti bi waaye sama xol ak sama jëmm ak sama lépp a nga ca biir mais ci làmmiñ rek génn naa ci parti bi mais est nekkul aussi ñi nga xamante ñoom ñoo bokk ci parti bi ñoom ñoo gën a xam projet de gouvernance am aussi non xam projet de gouvernance ni réew mi doxee lañ war a xam mm. ñoom amuñu projet de gouvernance amuñu tus yoruñu dara ah. naa da waxi kese lañ ñëw c'est des escroqueries politiques mm-hmm. ñu gis ne euh, le mouvement bi nga xamante ni euh, dafa ëmb ay commerçant euh, tey ñu ngi doon amal également ñu ngi doon war a amal foofule ci Colobane lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di ab ndaje ngir xool nan la ñuy def ba jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkuwanteel notamment lu jëm ci li nga xamante nii moom mooy seen marchandises yi ak li nga xamante nii moom moo di seen place yi nga xamante ni ñu ngi leen ko fay ñu ngi leen fay jëlee que ce soit muy Colobane ak yeneen ci ay ay marché xool nag nan la ñuy def. ba janook li nga xamante ni moom moo di nguur gi est-ce que tamit nguur gi jotul également vraiment mu jël ay décisions yi nga xamante ni dana mën a waxtaan ak li nga xamante moom moo di euh, marchand ambulant yi notamment euh, tissu euh, social bi parce que ñooñu dañuy bokk ci ñi nga xamante ni dañu porté woon projet bi que ce soit muy marchand ambulant yi que ce soit muy cag-cag yi que ce soit muy jeunes yi est que tey bu ñu continuer di doxalee nii yi peut-être ñu ñu nga xamante ni ñoo tey Euh, départ jàmmaarloo ak ñoom. waaw xam nga ñoom comme ñoo bokkoon ci projet bi ñoo jàppoon ci loolu. Mhm. nañ muñ. buñ ah ñu fàtt nag ak coow lu bari. non si ñoom ñoo tëjoon seen i boutique. Mhm. dem bokk ci suñu aar suñuy élection xaw ma aar suñu démocratie. Mhm. léegi nag affaire ñëw na këpp seen kaw buñ ñu sonal ak wax ju bari. mais dañoo amoon yaakaar ci ci gouvernement bi. waaw nañ mu ñu dem jàpp. am nga yaakaar ba dugal ci sa yëf. li ci des léegi xam nga ñoom chaque ñoom ñoo ñu doon wax biñ leen falee. man bu ma génnee di wax ñu ne ma da nga sonn ndax 50 ans lañ fi war a def waaye yow 4 nga bëgg ne fi di grève yow mi doon wax 50 laa fi def 4 mois nga bëgg a génn xanaa yow la nga doon wax doonatoo ko man sonn gu ma jooyo gu ma man di te maa leen waxoon bu leen leen fal nañ la ci rus bokk xanaa <laughs> nañ ne ah am na ngóor su doon wax bu buñ leen nañ ko ci xool mm-hmm. gênant de mm-hmm. yàlla du nit mo tax nit ki li fi ngay duggal sa xol dang ko wara xam bu baax fi ngay duggal sa alal dang ko wara xam bu baax fi ngay duggal sa alal dang ko wara xam bu baax ak fi ngay duggal sa xol ñoom nak ñu doon jël seen alal di duggal ci parti bi jël seen xol di duggal ci parti bi di tak ay njël di tak ay photo di julli ci ay de ay ay ay photo Sonko di wax Sonko moy suñu bay moy suñu yaay moy hmm. suñu mam li grawul Sonko seen bay la seen yaay la muñ len ko. papa moom lu mu mën def dañuy muñ dajaloo yëpp mën naa ñàkk ñoom ñoo def kenn du ji kaani nag xëy kaani gi sax nga dem di witt ay pompali muus ak di fa banaana munta ne de mm-hmm. kaani rek nga mën a witt ñoom ñoo ko ji suuxat ko nañ ko buñ gérer rek parce que ñii lii amul changement mm-hmm. parce que yow mënoo ne cëpp ci réew taxi yi ca port ba nga yëg yokk ko mooy benn mm-hmm. aéroport ba nga yokk taxi ya yow passeport bi ñu war a renouveler sax quarante mille nga ko far yóbbu te vingt mille la woon renouvellement bi boulangerie yi nga dégg ñun la produit yi war a defar lii bi yëpp dafa yokk mhm. commerçant yi dem ba ñenn ñi bëggatuñ jaay sax suukar parce que dañuy perte ñenn ñi teg suukar ak meew na leen ne dootuñu ko jaay mhm. yow nga dem wàññi ciment yokk fer léegi kii tabax wala boole see fer ak ciment yow wàññi woo kom mhm. nga bëgg ko teg ay magu ay xel ay tëgg wëndeelu di xoj entreprise yi ci impôt bu dul jeex te impôt bu bari day rey impôt nag da nga koy xont ba mu suur nga doog koo rab te am ci meew entreprise bi da nga koy dooleel ba mu taxaw man laa fay impôt hmm. mais entreprise bi bu taxawul du la fay hmm. ci foofu lañ jëm sax euh,